dafa dem ba dafa ànd ay menaces mu mel ne am nañ ci benn élément bu fekkente ne élément bi ñëw na rek ñu xool ko après ñu mën a continuer ci waxtaan bi. d'accord soxna si nga def. maa ngi si jàmm. waaw ñun de nekkuñu si jàmm. ah lu nekkoon sa problème. ah problème xanaa sàcc rek. waaw hmm. ah, sàcc daal may ñu jàmm hmm. loo fi defar daal ba mu baax. Hmm. ñu jóge fa la ñëw jël. ki ko jël doo xam fan la aw nag ndax dëkk bi dafa lëndam amul benn sécurité. yow lan lañ leen di sàcc ya. ak ah, ñun de dem ñu sàcc ay xar. ñu sàcc ay bëy ñu sàcc ay fas. Hmm? waaw affaire yi daal moom doy na waar loolu soxna si ñuy bëgg na ku ñu ci mën a dimbali nga dimbali ñu euh, si. yow nga ne yaa ngi jóge ci arrondissement Mérina Dakhar. arrondissement Mérina Dakhar waaw. Hmm. waaw léegi kon sàcc dañuy ñëw foofu di jël foofu ay jur. ay jur waaw dañuy ñëw di jël ay jur moom. yéen seen activité foofu fan la yéen dafa mel ni ay sàmm ngeen ak ay baykat. waaw dañuy sàmm dañuy bay. Hmm. waaye nag euh, parfois bay sàmm bi mooy tane bay bi mhm. ndax bay bi léegi-léegi mu baax léegi-léegi mu demee neneen waaw sàmm bi nag moom boo sa am sàmmee ba yàlla def nga am ci dara mhm. bu la neexee nga dem tabaski mhm. bu la neexee tamit nga jaay def ci say soxla léegi nag foo defaree sa jur ba mu rafet baax sàcc yi ñëw te bu ñu ñëwee tamit doo si man dara ndax daal nag wax dëgg yàlla sécurité bi daal des na waaw mm-hmm. ah, des na lool nag. yéen bu ñu leen sàcc ban heure lañ leen di sàcc. en ah, général guddi waaw guddi waaw. Mm-hmm. guddi daal lañ ñu gën a man a sàcc. man daal bi ñu jëlee sama xar yi bët dafa set dong ma gis euh, dem ci géej gi gis ma fi dara. gisoo fa dara fekk ma fa dara. ñaata xam nga ni ci jigéen dafa métti. Mm-hmm. jigéen ju sàmm ba dajale ba defee ne da koy amal njariñ. ñu ñëw jël ko moom neexul. ñaata xar lañ la nañ ma juróomi xar juróomi xar waaw am ay xar yu góor am na ay xar yu góor ay xar yu toll ñaata ay yu a yu war a jar ñaata waaw xar bu góor bi de presque moom xam naa bu amul quatre-vingts tamit dina am soixante-quinze dégg yu jigéen yëpp wax dëgg yàlla dañoo topp ba rafet déggal lii rek waaw ñu jigéen ñi yëpp dañoo topp ba rafet ca fan yee ci ginnaaw tamit ñëwoon nañ fa mhm. jiital fa lu mat ay trente bëri dégg waaw ak yeneen beneen kër bu ma dendeel tamit seeni xar noonu mhm. beneen kër bi ñu dendeel ay fas lañ leen def jiital ba tey kenn xamul fa fas yi féete ñun daal sonn nañ moom. mu mel ni daal kon mbir mi mi ngi bëgg a def ñaari at yoo xam ne ci dëkk arrondissement mairie Ndakaar bi. waaw sàcc yi daal dañ leen a jël. waaw di leen bëgg a rey. di ñu bëgg a rey. dafa mel tamit wax nga léegi lëndëm lëndëm mu mel ni kon yéen amu leen courant. amuñu courant tamit waaw. Hmm. waaw parce que loolu ci la bokkaale. Hmm. ndax xañ na bu ñu amoon ay làmp. Hmm. dinañ def fu nit jaar dinañ ko seen xanaa. waaye nag lëndëm na lëndëm boo xam man ngaa ñëw dugg ba génn ba dem te kenn du la gis. kenn du la gis waaw dëgg la kon soxna si. Euh, loolu daal moo taxoon nga ñëw ci cas mars bi wal fajri pour jooy fi sa sa sa problème. jooy fi sama ngi lay jaajëfal bu baax. yaakaar naa ni ñëpp ñun ñëpp ñu ngi koy déggandoo. Euh, soxna si dafa jóge ci arrondissement mais dina Ndaxaar. ñu jël ay xaram mu ñëw fii nag di def déclaration. Mm. di defaale appel état ci insécurité bi nga xam ne moo am ci arrondissement Mérina Dakhar ak ka nga xam ne moo fa nekk di politicien bu mag di ay maire yu ah yaakaar naa ni dina war a dégg lu mel ni ñu ngi lay jaajëfal soxna si. mu nga ko xayri am na solo ah. mu doon reportage bi nga xam ne def nga ko ci euh, fële nga xam ne moom moo di Medina Dakar ak soxna si nga xam ne joxe na ay exemple yu sàcc yu yu garaaw garaaw sàccum jur nag du ñu ne guléet mm-hmm. état bi sax jëloon na ci ay dogal ci jamono jooju ati 2014 ba daal di amal loi criminalisation lu jëm ci wàllu vol de bétail mais gis nañ ne que ba tey amatul amul benn suivi euh, euh, ko ku sàcc jur mën nañ laa tëj ba 10 ans de prison mais da ngay xool ne que affaire bi mm-hmm. amul benn motivation amul benn suivi Mm-hmm. am na sax ñu jógoon tey ji kuréelu euh, ay kuréel la ay ay ay mouvement mm-hmm. dem ba Kaolack nee nañ foofu la gën a variété encore dafa def benn euh, benn projet bu ñu dibbee mm-hmm. diri cin mais loolu aussi également gis nañ ne que amul suivi donc doy na waar daal ci ci ci sàccum jur gi metti na nit jur jur euh, am ay sàmmam yaakaar ci dara nga ñëw sàccal ko ko doy na waar aha ah, Aïcha bu ñu rebondir tuuti rek ci reportage bi xam nga li mu wax ne dafa nekk lu triste dafa nekk lu metti parce que bu fekkente ne da nekk ci benn village boo xam ne yaakaarul lu dul bay ak soxna si nga def te mbay mi xëy na peut def mu am mu baax wala du baax ah, nga nekk jigéen te na ni jur yaakaar sa lépp ah, parce que da ngay jël boo amee problème moom ngay jël di jaay mm-hmm. bu écotijee ci xari ngay jaay pour mën a inscrire say doom ak yu ni ki noonu mm-hmm. bu tabaski jotee ci ngay rey de temps en temps nga am problème ci ngay jàpp jaay pour régler sa problème ah donc bu fekkente lépp loo xam ne yaa ngi ko teg ñu ñëw yanu ko yóbbu loolu tamit dafay dem ba finalement dafay métti trop te dafa nekk dëkk boo xam ni comme ni ñu koy waxee rek euh, ci village yooyu noonu may profité di leen nuyu waale ñoom ñëpp euh, Këleen ak Njanjaar mhm. Battal ak dëkk yi ko wër yooyu yëpp mhm. ak ngajagaak yu demee ni ki noonu mhm. dafa nekk ay dëkk yoo xam ne c'était ay village la mais dafa nekk ay village yoo xam ne dafa xaw a lëndëm pare dafa soriyanto amul courant léegi nag ñoom bu ñu xamee ni léegi que dañ leen gis ni genre sàcc yu mel ci capital bi nga xam daan dégg wala région yi sax mm. léegi-léegi mais dem ba ci village ba mm. nga xam ne ñoom bu ñu xoolee ñoom seen jur yi dañ koy jël di ko bàyyi ci àll bi mm. eh, donc da xëy rek xool doo gis dara mu nekk tas yaakaar boo xam ne ay chef doo xam nan nga koy mën a nettalee comprendre na ñoo xamante ne ay yëfu jàmbur la ñu yor parce que dañ la naan sàmmal ma après bu boo sàmmee bu amee da ngay am man tamit ma am léegi nañ yow yow loolu buñ ko jëlee yobbu kim ko juru jàmb bi ñii mën nañoo gëm ñii duñu gëm mu nekk sàcc goo xam ne métti na et puis bàyyiwuñu dara nag parce que même bu fekkente ni fas yi nga xam ne moom lañ yaakaar pour bàyyi ci sax fas yooyu dañuy ñëw di ko jël di yóbbu bu fekkente ni bëy ak xari la même mu nekk lu métti te comme ni ko paate waxee gis nga affaire yii nii buy am gang lay doon mhm. parce que déjà ñoom bu ñu ñëw dañuy armé wu waaw dugg ci biir dëkk bi te xam nga ni village amul lay gor que dégguñu nag fu mu ñu jël nañ benn village rey nañ ñëpp parce que ñoom bu coow jógee rek ñu jóg dégg nga léegi ñu naan euh, ñu ngi jël ay euh, kii de disposition pour Kaolack euh, Dakar ak Touba parce que dégg nañu foofu am na meurtre. Mm-hmm. tout simplement parce que balaa ñuy jóg rek fekk c'est li la mort waaw voilà léegi nag village yi nga xam ne ñoom dañ leen a jël te la ne li seetaan ñu yóbbu seen i jur mm-hmm. xanaa nga jël ko seen ginnaaw mm-hmm. donte ne dinañ fa ñëw wàcc di tirer ay bal mais saa bu ñu tirer ñu génn jàkkaarloo ñoom dinañ fa ñëw ak i jaasi dinañ fa ñëw ak lu nekk mais à chaque fois parfois dañuy reculer delluwaat. Mhm. mais bu ñuy ñëwaat ci moment bi ñuy ñëwee dinañ ñëwee anam boo xamante ni bu ñuy jël jur gi di ko yóbbu ñoom duñ ko yëg. mu nekk nag lu doy waar nekk insécurité boo xamante ni foofu doy na waar trop Aïcha mhm. parce que tamit bu fekkente ni dañoo am benn politicien boo xam ne dafa nekk foofu noonu ci dëkk ba ñëpp xam ko ci tolluwaayam am na loo xamante na ko fa a assurer du toll ni éclairage bi aussi parce que mhm. foofu dafa lëndam amul courant ku da ngay raw parce que amuñu ay moyens amuñu ay tali oto yi ñu fay indi pour yóbbu jógee ah, ay kii yu baax parce que lépp ay mbedd suuf lay doon voilà ay 4x4 la ñuy taal ñëw fa boo o toppee finalement après doo xam teg ci daw dem mi ngi noonu ngay ñëw sàcc dem ñëw kenn après daal foofu kenn amatul courage pour sàmm parce que léegi loo fa yeew ñu ñëw jël ko yóbbu ba tabaski jotee nit ñi sonn parce que doo am xaru tabaski doo am loo ko jëndee waaw mu nekk lu doy waar mhm. donc Aïcha nag ne comme ma wax rek xam nga Sénégal léegi-léegi damay wax rek dama diina ji dañ koy mbubboo mais li ci nekk ci pratique yëpp duñ ko def bu mhm. fekkente ni l'islam dañuy charia dafa digle ku sàcc ñu dagg loxoom ku rey ñu rey la yàlla ëpp ñëpp yërmande bu fekkonte ku sàcc ñu dagg loxoom non seulement waxuma la sax voilà mais di nga am kersa sax yor sa loxo di dem ñoo xam ne yow sàcc nga te dañ boo sàcc la jàppee dañ dagg sa benn boo ko bàyyiwul ñu dagaat sa benn loxo muy ñaar képp ku ñu jël sa benn loxo loo xarañ xarañ di nga réglé mais nag loolu lañ dul def. mais kon waa nguur gi dañ ñu bari nañ dagg seen loxo de. <laughs> waaw Aliou Sow est nga ni muy wax loolu bàyyi naa Aliou Sow léegi mu ne <laughs> léegi léegi. wala boog ah mais kon ñëpp kon Sénégal ñëpp ay man Sénégal ñëpp ay manso la ñu en manso la ñu doon. en tout cas en tout cas loolu la ah? charia ku sàcc ku nekk dañoo war a dagg. kon kon nguur gi yëpp ay manso la ñu war a doon. ay ah, manso mooy ki am benn loxo. xam naa ko noonu noonu la benn waaye dana ma dana ma dana ma ab sàcc. Mhm. ab sàcc na yërëm boog yaayam. Mhm. dëgg yàlla na yërëm yaayam. wallaay ndeysaan mhm. dëgg la mën na ko waa lu tax. mu ne ma ñëpp seen yaay di jur ñii seen yaay di jur ay président ñii ay bureaucrate ñii ay nangam. moom yaayam di juróom sàcc. mu ne bu demee bay sàcc na xalaat yaayam. mu mm. demee bay jël dara di ko sàcc. Mm. Mm. gàcce boobu yàlla na yàlla bu jëlee bay dem bay sàcc. Mm-hmm. mu ne na xalaat yaayam. waaye xalaat ne yaay xam moo ma jaaxal euh, doguma la mon frère. mais mais euh, sa sa sa sàcc sàcc bi sol costume euh, ak ak ak chemise bu weex ak cravate bu ñuul wala sàcc bi nga xam ne mooy mooy ki sàcc sol pantalon jean déchiré ñu yóbbu ko 100 mètres tëral ko pour pour pour pour ñaari xar yi mu sàcc wala sàcc bi sàcc ñaari milliards. xam nga aussi. xanaa xamoon ne xanaa ñoom kooku tamit président la. waaw yaayam jur jur na sàcc. waaw mais sàcc bi sàcc waaw wuy ma Aliou non loolu waxin la dégg la laaj. <laughs> sàcc bi nga xamante ni moo sàcc mooy costume cravate sàcc ay milliards. <laughs> xanaa xamoon ne sàcc boobu moo jur sàcc bi sàcc am xar ak ginaar. Mm-hmm. ak ak ak ak cinq mille. moo ko jur xam na lu tax moo ko jur. milliards yooyu muy sàcc noonu. buñ ko defoon ci ay emploi ak yeneen i béréb. kaa ko di sàcc du tal sàcc. ma wax la benn ma ma netti leen benn anecdote bu garaaw benn anecdote bu garaaw laa leen netti. Mm-hmm. deux secondes. Mm-hmm. li ma leex wax nii. jeex na man man sama sama sama sama <laughs> sama sama benn sama benn bàyyi moo ma ko nettali ndax da koo fekkee te wolof nee na bàyyi ne ak maa fekkee bakkan lay laaj mhm. da dafa am jenn juma fii ci réew mi dañ fa demoon di fa may ab sëy booba Cheikh Alhaji Abdou Aziz Dabaax moo fa nekk ñu fas sëy bi ba pare tafangoom jóge fële witab saakoom ramas dàll yi nekk ca ca ca buntu jàkk ji yëpp sotti saakoom dem mm. xam jàkk ñoo xamante ni ay kilifa rek fa ne ay dàll yu cher rek fa ne mm. mu sàcc dàll yëpp sotti saakoom dem dafa ngoon <laughs> dégg bi mu sàccee dàll yi ñu xool gis dàll yi dem ñu dem ñu ne sàcc sàcc sàcc coow jàpp kaw suuf alaaji Abdu jël leen seen kurus mm. joxe dog ñëpp ne tey de sàcc bi torox tey sàcc bi alajab du mer ba ne jëndin suñ kurus nar a joxe dog alajab na jëndin suñ kurus ñu ñaanal yàlla ñu ñaanal ko yàlla yàlla defal ko ay xéwal ba du tal sàcc allahu akbar jëndin suñ kurus joxe dog ñu ñaan yàlla defal ko ay xéewal ba du tal sàcc moo tax ma ne la sàcc bi sàcc ay milliards moo jur sàcc bi sàcc mille francs ndax milliards yooyu buñ ko defoon ci suñ ko war a def mhm. ndaw ñi am liggéey ñëpp am bien être kenn ku ci nekk dootoo tal sàcc euh, mbay baaba waaw bëgg ñëw moom mooy genre booy jël euh, ndogal nguur par exemple buy jël buy jël décision na dañuy criminaliser tel acte wala telle chose mhm. yaakaar naa yoon la ñu am ay mesures d'accompagnement yoo xam ne daf ci daf ci war a àndaale quoi mhm. xam nga donc déjà bu ñu ñëwee di wax criminalisation vol de xam nga ndakaaru njaay gi si la bokk daanaka dëgg la ci la bokk parce que Sénégal la bokk mais taxul ñu wax li tax ñuy wax mooy biir Jolof ak Fuuta ak yooyee mm-hmm. dëkk yi nga xam ne yaa ngi ko doon wax àll bi moo tax ñu wax te loolu pour mm-hmm. falaa bu da ñi nga xam ne lu aju ci wàllu sécurité ñu mën ko matal muy éclairage bi wax nga ko tout à mm-hmm. muy aussi maanaam ay ay ay ay poste de police yoo xamee ne que yu yu ñuy doté de tous les moyens dont ils ont besoin su maa ngi gis waa waa ASP yi ñuy wax ne lu feeg mars 7000 euh, agents ASP dañ leen di génne ci kii parce que en fait contrat yi leen yeewoon ak état jeex na qu'est-ce qui empêche que ñooñu ñu jël leen yóbbu leen ci biir dëkk ba bu ñu bëggee ñu topp ñu liggéey bu fekkee ne bëgguñu ñu bàyyi ñu dem ñu génn ci kii parce que soxla na leen toog ci àll ba soxlawul leen fii ci circulation au Sénégal soxlawul leen euh, euh, kii eh, xëy na la moo tax ce sujet bi am solo loolu moom mooy ne que impunité bu amut ñoom mën nañ ko fajal seen bopp parce que gis nañ ko gis nga ay Mali mhm. ay Niger mhm. ay Mauritanie wala ay par exemple ay Nigéria. Mhm. ñoom jar na leen génocide am ci. parce que da ngay da ngay ñëw sàcc sama jur ma rey la xarit nga fekk na rey nga benn village euh, doomu benn village à côté ñoom ñu ñëw fayu mu mujjee nekk génocide gis nañ ko fi à tout le temps c'est des centaines de morts wala des vingtaines de morts te loolu moom moo ko indi moom moo tax ce sujet bi am solo il faut que ñu interpréter yi nga xam ne ñoom autorités yi moom njiit réew Macky Sall en 2013 mhm. taxawoon na fi discours ñëpp di ko xaar loolu rek ci loolu rek la wax parce que xamoon loon ne ne que euh, sàccum jur gi mu ngi jur ay jëye ëpp mën na jur fii dem ba génocide te loolu ñëpp xam ne ne kenn ñaanu ko ci ab nguur Aïcha am na sama benn waay bu jóge ci benn réew ci réew yi ñu war mm. nii moo fekkee parce que foofu la nekkoon yàgg na fa mm. benn am na benn bis benn xale da benn benn benn jeune dafa romb benn gel bu yor portable am mën na ko panget daw mm-hmm. di daw mm-hmm. publiquement ñëpp di mais nee na bi muy daw benn waaye moo ne Richard fétalab na ko pan mun a jël <laughs> mu ñëw jël jël portable bi delloo gel bi

bëgg ñu rafet te saa bu ñu rafetee ñu ñëw jël yóbbu loolu aussi dafa nekk loo xam ne dafa dafa xaw a doy waar mais comme ni nga ko waxee rek état bi na ci ay ay yu sévère nag mm-hmm. jéem fa def ay poste de police paate comme ni nga ko waxee te gis nga ñoom ni ñu ni ñu jooytoo nii groupe whatsapp yi nga bokk yëpp ñuy nekk ay côté Fatick yooyu yooyu lañ lay jàmbat mhm. boo bokkee ci groupe sax nekk wal faji dañuy yow xanaa a rey dañuy yewi suñu fas yi di yóbbu dañuy def lii dañuy rey dañuy def nii dañuy menacé xam nga mhm. yu demee noonu donc Aïcha mu nekk loo xamante daal vraiment xëy na temps bi moo ñu ko mayul waaye di jaajëf rek ñoom ñi nga xam tamit am nañ courage ñëw ba fii ni déclaré li nga xamante ne mooy seen métit noonu yàlla na ko yàlla saafara mhm. di ñaaxaat état bi ak jigéen yi ñuy rey di leen tëdd di leen rey métti na loolu war nga cee wax xëy ay waay métti na xale yu ndaw xula xale bi ñu rey mu am vingt ans xuma vingt-huit ans boo gisee photo ci Facebook loi bi lijjanti na ko criminalisation euh, viol ak non euh, vraiment doy na waar tamit euh, pédophilie vraiment vraiment vraiment métti na métti na waaw maa ngi nuyu sama sama grande sœur Nabou Fall maa ngi ko nuyu bu baax a baax dëkk fële ci Këleen Fall di nuyu tamit waa Njaanjaay Maxa bu baax a baax ak waa Bakel ak euh, dëkk boobu village yi nekk foofu yëpp maa ngi leen nuyu ak waa arrondissement mhm. sama waa groupe Kër Maam Sëti Maxa yi ak Maguette maa ngi leen nuyu ñëw tudd ngay village yoo xam ne mhm. wolof rek la xam ah dëgg la dëgg la ñoom moom rek la ñuy seetaan à suivre ñu ngi leen ciy gaaw nuyoo bu baax a baax di la gërëm di la sant yow xëy yow tamit di la gërëm di euh, amoon mbégte di bokk yow plateau vraiment c'est toujours un plaisir partagé ah bu baax a baax ci euh, li nga indi woon tey jilee ci euh, rubrique mœurs mbokk yéen tamit ñu ngi leen di jaajëfal bu baax a baax di la wax ne lii leen fi indi loon tey ci menu petit déj jeudi bi yamoo ko fanweeri fan ci waaw xaal solal ah macha allah xanaa yow tamit sa tenue dina ñëw. acca tudd waaw waaw Nazra Sock moo jaar ah. bi.